alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi fu ngeen mën di nekk ci àdduna tey di 28 maamu koor jumaadal axira 1445 ci atu jant bi di tombeek 11 janvier 2024 fii ci daarul quran bureau régional bu fédération nationale des associations d'école coranique du Sénégal ñu war a wax àdduna rawatina waa Sénégal jëkke nuyu waa euh, maanaam jullit yépp waaye jiital ci waa ahlul quraanil karim sunu sababug daje mooy nemmeeku nañu ay at ca sunu jamonoy maam ay nit ñu weex ñëw noot ñu di ñu xañ daara lakk fi ay daara ërtal fi ay sëriñ seriñu daara ñu dem di dem ba après indépendance jàng njàngaan ak film bu nekk tegal nan nu ko diabolisation bu nekk daara jot na ko dund bi loolu jàllee ba ci ay gu mujj gi ayuk maître Abdoulaye Wade njalbeenu ko ayam commencé woon nañu di ñu ërtal ci mbedd mi ci ñu néew doole ci ñun ba ci ayuk ki fi nekk di président Macky Sall moom it njaal beenam du ñu fàtte mukk ñi nga xam ni ay ONG lañu ONG yooyu nga xam ne diir bu yàgg lool yàgg di ërtal daara rawatina ñi ñu ñi ñuy tudde daara cosaan demoon nañ ba ni fii ak mois de mars ci atum dix-neuf zéro taalibe ci mbedd mi au lieu ñu ni zéro enfant mais ñu ni zéro taalibe terme boobu lañ doon jëfandiku du ñu fàtta fàtte juufa ñoo ak ñam àndaloon ci jamonoy corona bi du ñu fàtte ni tëj nañu suñu daara daara saaliw congaan ba fi mu ne nii daara jooje ci Cambérène 2 tuxu na dem fu sori du ñu fàtte daara sëñ siñaan ca cité faja loolu ay exemple rek lañ leen ciy jox bi loolu jàllee corona bi di randu euh, ak defar di xaw di commencé am ci feewu mandat ki fi nekk ba bi corona bi egsee bi ñu profité ci occasion yooyu ba mbir mi jàll ki fi nekk tey woo ñu 28 novembre 2023 ca Sikat ca jam ñaajo ñu wuy jiko ba ñu demee mu jël fa lu mat fukki matuwaay ak ñeent ñu koy tuddee quatorze mesures fukki matuwaay ak ñeent yooyu bokkoon na ca at mu jot mu nekk journée nationale daara waa daara da dajeeg waa gouvernement di Sénégal defaat nañ ko le 16 décembre bi ñu génn dañ ko puus bi megsee ak concours national wala international ak jël lu ma juróom-benn téeméer ci ay jàngalekat ak programme paquet bi nga xam ne mujj naa nekk PAPS ak euh, li nga xam ni mooy budget de dotation li nga xam ne école yu ñu dul jullit am nañ ko école publique am nañ ko cantine scolaire am am na daara nag àq àq àq yooyu daara mosu ci am ba nga dëjeeg moom daaw mu wax ñu ni danañ fell lenn ci seen àq jox leen ko kon loolu du ab sarax fell googu nag pour mu am mu ne nañ amal cartographe daaw cartographe boobu nag fédération bi mi ngi doon xaar ànd ko ak état parce que it nag loo xam-xam gànnaar waa gànnaar gën laa xam gànnaar fii ci mim réew am loo fi defal daara te doo ko jaar ci waa daara rawatina fédération bi loolu mënul nekk kon cartographe boobu euh, amut amagut bi ñu dajee waat moom ren fekk balay daje bi gis nañu ministre Cheikh Omar Anne mu toog ak kenn ci kilifa daara ji suñu bàyyi Cheikh Muntaka Mbàkke bu sëñ Basiru bu maam Ahmed Bamba euh, yàlla ko yàlla doo ak wér mu wax ni tàmbale na joxe boobu ñun dañoo nopp parce que duñu wax ci mbedd te du gaaw a wax ba ñu dajeeg njiitu réew mi njiitu réew mi nag lam ñu wax ba ñu dajeeg moom mooy fan yi dana tàmbali kon ñu xam ni contradiction am na foofu waaye kilifa dañ koy suturaal ñu bàyyi mu jàll euh, kii nag nga xam ne moo di Cheikh Omar Anne de ministre bi yor wàllu njàngale mi te mu war a nekk suñu loxo ndeyjoor ak état euh, lii ñuy wax tey jii bëggoon nañ ko wax ca fan yële fii ñu nekk tey booloo mu bari daje daje na fi Euh, suñuy kilifa wax ni Cheikh Omar Anne ministère am jot na suñuy kilifa ci ni danañ toog ak waa fédération bi àllarba ni ki démb wala alxames ni ki tey loolee nag ci li ñu jot ci ay information amut tey muy dëggit ndax ba fi na nii ñoo ngi ci bëccëgug alxemes man mii di wax ak yéen en tant que secrétaire général bu fédération bi jotaguma benn invitation wala convocation wala nu koy niru kon li muy tekki mooy jotaay ba moom naax saay na moo tax ñu ne kon désormais kon fokk ne ñu génn wax ak sénégalais yi ndax tey sëriñ daara yi fi nekk yépp foo lang say mbokk ni la ana nangam kon mbir mi du mooy ceeb bi moo nu yitteel déedéet ndax daara yi ngi añ di reer di ndékki selon seeni moyen ak moyen jullitu Sénégal waaye jëmmu jëfin bi ay kilifa nga ni leen nañ toog waxtaan nga toog ba yàgg kenn déggu la kenn gisu la te waxtaan woow seetlu naa ne lu jige ñaari at a ngi nii diiru ba nga xamee ne Mamadou Talla jóge na ci bopp ministère boobu ñoo ngi sàkku ak dajeeg ki jiite ministère bi di Cheikh Omar Anne mu tëj ay buntam walis fédération bi dëgg dañ koy wax mu leer lay dëgg nag tey dëgg mooy waa ministère ba di iid ara bi nga xam ne tey soppali nañ ko mu nekk direction Babacar Samb di suñu xarit yore ko amuñu lu ñuy wax ci ñoom waaye nag ki nga xam ne mooy bopp bi te ñoom mos mënuñoo fas mënuñoo fecc mënuñoo nas mënuñoo nocci lu dul ci moom parce que kër gu nekk day am kilifa moom moo mu nga xam ne nag mooy Cheikh Omar Anne wax dëgg yàlla Macky Sall na bàyyi xel monsieur le président de la république que ni ki yor direction bi wala ministère bii yilif inspection de daara continué yilif i daara xawma euh, euh, i daara muy euh, direction de daara ci biir ministère am président nga bàyyi xel ni ñun waa daara wax dëgg yàlla kontaanuñu ci doxalinam tey la ko war suñu diggante ak moom defu ko lii may joxe ni ay preuve la ci naka la ngay xëyee jékki-jékki rek gis ay list yu wàcc ci terrain bi liste yooyu euh, nga xam ni bu ma jëloon par exemple Kër Massar mën nga ni lu jige quatre cent daara sept personnes moo nekk ci liste ya sept yooyu euh, cinq yi xamuñu leen ñoom waa Kër Massar deux yi lañ xam noonu la amee ci Sédhiou noonu la amee ci fu nekk ci dëkk yu bari bari ci quarante six départements yi mën nga ni euh, quatre vingt quinze pour cent wala quatre-vingt-dix-huit pour cent nii la demee kon loolu mooy lan est-ce que ñu nu bokkulul ak ñoom diina te ñu samp fii di fi jàngale est-ce que noonu lañ leen di def benn ñaareel ba sax est-ce que ñoom bu ñu leen di jox dañ koy siiwal est-ce que war nañu mën a ni waa daara dañ leen defal ab milliard bu ñu jëndee ceeb seddale ko ci daara yi ak cinq milliards boo xam ni war nañ leen ko jox ko gën a tuutale trois cent mille loolu lu noo këlamtikoo la mais nekkul loo xam ne sax mooy la jaadu ak daara mais bu dee ab tàmbali la dañ koy d'accord waa daara ay gor lañu li ma biir ci biir mooy buñ ne woon liste yi du mën a mat seet leen nu ngeen ko arrangé fédération bi dana defar ay liste yoo xam ni waa daara yëpp danañ ci gis seen bopp te ku dëkk ci quartier nga sedd te sa mbokkum daara séddul danga ko sedd ndax kenn ci ñun du lekk bàyyi sa mbokk kon tey suñu problème mooy manque de communication manque de communication bi war a am suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu njàng njàngale ci mim réew loolu dafa amul kon dañuy wax ci lu leer naññi mooy liste yooyu ñu commencé séddale na arrêt na taxaw dégg nañu nekk ñuy wax ni ministère bi dafa bëgg a wax ni Euh, nañu ku amul demal bindu ba ñu séddale loolu ba pare après ñu toog waxtaan kon dafay mel ni ñun problème mu ceeb bi moo nu am moo nu amal problème ak moom waaye moo ci gën a tuuti du ci dara kon noonu la wax mooy nañu arrêté séddale bi nañu arrêté seddale bi ba waa daara toog ak ministère bi su boobaa li ci ñun ci lu ñu war a regle danañ ko ko jox ñu regle ko. kon nun waa daara lii mooy sunu kàddu jullit yépp dégg ko loolu moo ko waral sunu bopp nag sunu boroom lañ ko mës a dénk waaye dénk sunu boroom sunu bopp tekkiwul ni dañuy toog lay sunu àq ñu di ko bazarde ñu croiser les bras déedéet lii moo waral sunu kàddu ndax nun li nu gëm mooy wa ma min daabatin fi l illaa ala allahi risqa wa in min cheyin illaa indana xazainuhu wa maa nunazziluhu illaa bi qadarin maalum sunuy maam ci noonu lañ doon dundee ba tey jii mais jamono ji ñu nekk nag di troisième millionnaire vingt et unième siècle ku taxawut ñu noote la te nag walaw laa difaau llahi naasa baadahum bi baad la fasadatu ard la huddimat sawaamiu wa biyaa fokk dana am ñu taxaw nag de défendre lii di diina yàlla ji diina yàlla ji di lislaam kenn mënu ni da nga ko aar da ko taxawu ba pare gannaawal téere bi muy alquraanul karim téere bi kenn mënul wax ni da nga koy sàmm di ginnaawal ndonga daara yi ak sëriñ daara yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu